Le journal de la Fayda. journal de la Fayda. journal de la Fayda. vous écoutez le journal de la Fayda. yéen a ngi déglu seen journal de la Fayda. Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñetti waxtu jot na ba teg fanweeri simili ca tey beñe seen ne tey la dibeer ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2023 yéen a ngi ànd ak ñun ci seen chaîne youtube bi la Ibrahimya TV l'univers des barhamiens première chaîne francophone de la fayda ñoo ngi ci ñaar fukkeeli tomb le journal de la fayda na lépp bàyye na lépp bàyye na lépp bàyye yaa bàyyi ñasi yaa bàyyi ñasi yaa bàyyi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara fas yéen a digtal leen xibaar yi ci faydu bi bisimila ñu doore ko ak bopp xibaar yi ab CRD la ñu doon amal ca dalub gouverneur bu Kaolack ngir waajal gàmmu tey ba ñeseen Medina Baye gannaaw wa siyaare xaalis bi ña ngay waajal siyaare dugub bi prix international Cheikh Ibrahima Niass ci wàllu tarima alquran la ñuy woote Medina Baye Kaffrine ña nga cëppi sa mu Mudir bàyyi moo génn àdduna lim yéene kaay bi ubbi ñu buntu ci tomb yi ñu dëkkuma la ngir wane lañu ak xaas yi tey ah, mu fas yéene wane lañu ak Serigne Mbaye Niass na lépp bàyyi na lépp bàyyi na lépp bàyyi yaa bàyyi ñas yaa bàyyi ñas yaa bàyyi bismillah ñu tàmbali yaatalu xibaar yi dem ca tey ba ñu seen ak wàccaayu gàmm gi ñuy defaat mu nekk ngir màggal gane àddina cheikh al islam alhaji ibrahima ñas ab CRD la ñu doon amal ca dalup gouverneur bu Kaolack keroog alxames fukki fan ak ñaar a ci weeru janvier vingt 2023 ndaje ma Ousmane Kane mi gouverneur bu Kaolack moo ko jiite woon na àndoon ca ak COMAF fa muy kuréel gi ñu dénk lépp luy organisation ci bépp yëngu-yëngu bu aju ci faydu bi ak mboolem chef de service yi nekk ci région bu Kaolack ca ndaje ma dañu doon waxtaan ngir jël ay matukaay eh, yuy tax ñu mën a amal gàmmu gi ci anam bu mucc ayib naka noonu gouverneur yiraat na mboolem soxla ak jàmbat ya waa COMAF fa tekk ci ay yoxooma Ah, bokk na ca la Cheikh Baye Mamou ñas ak kuréel ga mu jiite feddaliwaat mooy ñu yàkkale talibe dox diggante dingiraay ak ba Taïba na ndax yoon wa dafa xat ba nga xam ne ñaari woto sax bu ñu fay dajee dañuy wàcc taliba mbirum cet gi it jàmbat nañu ko ak kaaraange gi bokk na ca njàmbat yi it bëgg nañu ñu sëkk pax ya ca mbedd ya ndax tawi nawet bi ñu génn yàq na mbedd ya xotti leen na def ko ay kambo bu ñu sukkandikoo ci Barham Universel Media TV mboolem chef de service ya fa teewoon na digg nañu ne danañu taxawa temm ca soxla ya gàmmu gi nag jàpp nañu ko juróom-ñetti fan ci weeru février atum 2023 ñu dem ci Medina Baye gannaaw bi ñu amalee siyaare xaalis bi fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2023 ñu ngay waajal siyaare dugub bi nga xam ne jàpp nañu ko àjjuma bi ñëw yemoo ak ñaar fukki fànn ak juróom-ñaar ci weeru janvier ba tey ca Medina Baye Grand Prix international bu Cheikh Ibrahima Niass ci wàllu tarim alquran édition 2023 la ñuy waajal képp ku ci bëgg bokkoo mën nga woote ci 77 655 15 07 wala nga woote ci 77 570 65 98 ñu dem ci Medina Baye Kaffrine akati soo fa am muy génnuk àdduna El Hadji Malick Wilane nañu gën koo xam ci Baye Mudir Baye ca atuma 1949 la gane àddina ca ndugu benn doonoon rakk ci Cheikh Abdoulaye Wilane maam Ali Wilane mooy baayam maam Soxna Ndaw mooy yaayam professeur la woon ca maxaat bu Cheikh Abdoulaye Wilane doore ko ca atum 1987 ba ñu sosee mahaat ba ci atum ba Cheikh Abdoulaye Wilane demee aji màkk ba ñibbisi ci la ko fale mu Ah, bu maxaat ba loolu moo ko indi la turu ah, Baye Mudir Baye ci atuma 2020 Cheikh Abdou Barhama tab ko mu nekk njiitu jamiyatu nasrul ilmi wa tarbiyatu awlaat ah, ba Cheikh Abdou Barhama génne àdduna ba léegi muy wéy la ànd ba ci anam wu rafet ak doom ja di xalifaam Cheikh wala Abdou Barhama bàyyi mu dira bàyyi tàggu nay ñi wuy ji na boroma makaro ko talaata fukki fan ak juróom ñaara ci weeru janvier atuma 2023 ca Tunisie ñu jébbal ko boroma a denc ko ca wetu sëriñam di magama Cheikh Abdou a keroog àjjuma ñaar fukki fan ci weeru janvier atuma 2023 umma bi ñàkk na tarixa bi ñàkk na waaye faydu bi ñàkk na rawatina Medina Baye Kaffrine Baye Mudir Baye yal na yàlla yërëm ko te tas ni ci barkeem ñu jeexalee ko seen yéenekaay bi di ñu wanale ak babul xadara mudirit murit sadiq bi sëriñ Mbaye Niass ma nga gane àdduna ca kër Tamba ca Gambie caatu atum 1905 ñu tuddee ko maamam Bakary Bakary mooy abu Aboubacar mooy mbay mooy sadiq mooy Bouba mooy Donde Serigne Mbaye doon nañu ko wooye it Aboubacar almusanna ndax li mu nekkoon ñaareelu doomu moo ji mu tuddee woon Aboubacar ndax bu njëkk ka ma ko tuddee woon Seydina Aboubacar Sadiq mi nekkoon xalifa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooma alxaaji Babacar Niass la ñu ko gënoon a xamee sëriñ ba yaraka la ci Cheikh Ibrahima Niass alxaaji Abdoulaye Niass Alla Kabira mooy seen baay sëriñ bay nekkoon na ko jege Cheikh al Islam alxaaji Ibrahima Niass nekkoon taalibeem di muqaddamam baayam alxaaji Abdoulaye Jolof la cosaanoo waaye eh, mi ngi sañ ci Saaluma ci jamono ji Mouhamad Niass ñëwee doon jàppale almaami Maba Jaxu Ba ca jihaad ji doxoon ci digganteem ak tubaab bi loolu mooy sababu Ah, li tax mu jógee Deli ah, ñëw Deli ca Jolof alxaaji Abdoulaye ànd na ak Maba Jaxu Ba ca jihaad ja ah, ba Maba laqoo mu ànd ak rakk ja Maamura Ndari Ba waaye it ànd na ak doom ja Sayera Mati Ba alxaaji Abdoulaye nekkoon na royukaay ci tarixa tijaani waaye it ku ci amoon na cër la ci atuma 1890 la dem Makka 1911 mu dem Fass siyaare ji Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu te yoonam woowa la amee lijaasa mutlaqa muy guleet ci Sénégal bi Ahmad Sukayri ju def ko mu nekk euh, xalifa Cheikhu yi moom moo fi ñaareelu xalifa Cheikhu Tidiane gannaaw Cheikhu Omar Foutiyou Tall ci Sénégal bi yaa euh, Serigne Mbaye soxna Khady Diaw mooy yaayam bokk ci famille Sira Diaw waalo lañu soqe ko ci taarix ñoo amoon cër lañu ca nguuru ko waalo ga ndax amoon nañu ab toogu ci assemblée ba soxna Khadijatu Oh, doonoon na soxna su yaatu xajo woon na ak taalibe yi bëri woon yërmande jox cër maam alxaaji ba noppi déggal ko soxna xadijatu ko amoon xam-xam la ci alquran ak ci diine nettali nañu ne maam alxaaji doon na ko tontuloo ay laaj ah, yu jëm ci diine ji ah, doom ja sëriñ mbay ñas ku teel a dal njàngum alquran la ci ron baayam alxaaji ah, alxaaji abdoulaye ñas bi muy am fukki at ak ñaara ci la tari dal daal di tàmbali njànguma xam-xam Ah, bi maam alxaaji làqu ci atum 1922 mu dogu ngir wéyal am njàngam ci ah, mag Cheikh Ibrahima Niass waaye Cheikh Ibrahima sant ko ngir mu dem ah, ci seen mag ja di seen taawu bàyyi xalifa Mouhamad Niass ngir wéyal fa am njàngam Serigne Baye tontu ko tontu lu gàtt mel ni dafa mer xamal ko ne ko man tànn naa la ba noppi soo ma nangul sama càkkuteef gi dina dem wuti ko Mauritanie te xamal ne bese ngi ñëw da nga ko layoo ak sunu bàyyee kàddoom yooyu sori loola ci Cheikh Ibrahima Niass mu gis na Serigne Ba ya dogu na moom it mu mujj nangul ko càkkuteefam nga ànd ak loolu seen magante lu néew la ndax juróomi at la ko Cheikh Ibrahima magee Cheikh Serigne Ba ya jàng na ba am ay xam-xam yu kawe Cheikh Ibrahima jox ko lijaasa professeur Baye def ko muqaddam yóbbu ko. laamarama sëriñ ba ya taxawal la ay école di jàngale alxuraan na ak xam-xam jàngal na ay kàngam yu bari eh, ci réew mi ak bitim réew gannaaw gi eh, mu dese kër ma jëbel taxawal la institut Nourou Saba eh, mu siiw loola ci Saalum ak li ko wër sëriñ ba ya jàngalekat bu mag la woon te xamoon ni ñu koy defee waaye te ku mënoon saytu la ak ñoŋal taalibe yi moo doon gàddu seen lépp ngir def ci ñoom ngëm yàlla gu mat sëkk def leen ay nit yu sell waaye te def leen ay nit yu am njëriñ ci askan wi ba Baye moo jàngal alxaaji usmaan Badiane ca Laamara moo jàngal alxaaji Omar Biteya ak Ahmadou Biteya ca Kotinete moo jàngal alxaaji Ñaan ca euh, Kër Maba moo jàngal alxaaji Ibou Sall ca Medina Sabax moo jàngal tafsir Momar Thiam Ah, ci Serekunda moo jàngale Serigne Omar Sall nga xam ne moo nekkoon naayibam ma ci jumaa ju mag ji ca Kër Madiabel Serigne Mbaye ah, bindkat la woon bind na ay téere yu bari bàyyi ko fi bokk na ca téere yam nafaatu qudsiya ah, ak mu muhawaru bayna ruux wa nafsi bind na it ay xasida ak ay ñaan di ci tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci tagg abu abbas ya ahmad tijaan sharif radiallahu anhu waaye di ci tagg saaxibul fayda mawlana cheikh al islam alxaaji ibrahima Niass sëriñ bay aji na juróom-ñaari yoon na dem na fas yaar yi cheikh ahmad tidiane tukki na ay eh, ay tukki yu bari eh, dem bitim réew ci ndigalu mawlana cheikh al islam alxaaji ibrahima Niass ngir doxal ko ay mission tukkeem mi gën a siiwa boobu mooy eh, yoon wi mu àndoon ak sëriñ Aliou Cissé demoon na Soudan ci atum 1948 diplomate bu mag la woon ubbeeku woon na xam doomu aadama mën a duggante ak nit ñi Baye Niass ku ko wóolu woon na daan na ko dénk ay mission mu koy dox ba mu rafet bokk na ca mission ya mu ko daan dénk ca atum 1948 yebaloon na ko ca Nigéria ngir mu jubale émiru Hausa ya nekkoon na ca bëj gànnaaru Nigéria ak xereñam ci wàllu diplomatie may na ko ba yemul ci delloo ci jàmm ja rek waaye fexe na ba jubale leen ak yeneeni xeet yoo xamante ni ay jullit lañu ah, waaye bokkuñu woon na pas-pas Serigne Baye mi ngi génn àdduna juróom-ñetti fan ci weeru ah, juillet atuma 1973 ñaari at laata magge di sëriñam Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ah, di génn àdduna yal yàlla yokk seen letti taas ni ci seen barke Eh, lii mooy li gënoon na fës ci seen xibaar yi di leen ko doon dik dikkal di seen mbokku Cheikh Ahmad Tidiane bi tey di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen eh, di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu ko mu leew te yaatu boo xamante ni dañ ci liggéeyal Mawlana Cheikh al Islam yàlla may ñu gën mën a bàyyi mbëggeelam ci zaahir ci baatin